asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 29 janvier 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi moo xam sunu lamb la record wala Leewtoo TV bu dee yëglikaay bi di sunu lamb la moom ka mu xëy ñëw wala ci ñi mu xëy ñëw tey mooy ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang ka xëy di ca wax nag mooy Tapha Kandji ma nga xam ne daal moo yor sañ wax ga ca bàyyi ka nga xam ne nii moo di Boy ñan maanaam daal mooy porte parole am wala mu yore bokk communication Tapha Kandji nag moom dafa mel ni ak staff ba ñu àndal daal te yor Boy Niang moom cinquante millions maanaam juróom fukki million yañ leen proposé pour ñu bëre ak Balla Gaye daa mel ni loolu daal dañ caa tifli maanaam daal dañoo jàpp ne la moom jaruñu ko Tapha Kandji nag moo xëy tey di wax ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb nee na daal ñoom fixé nañu seen prix nee na tamit jamaïcain bu ko neexee na dem discuter ak camp Balla Gaye numéro 2 nee na ñoom bu desee ci moom xëy na jàpp na ne boobu terrain d'entente dina am maanaam daal ak déggu dina am ci ñoom loolu waxi ki nga xam ne la moo di Tapha Kandji ci yëglikaay bi di sunu lamb jëm ci combat bu jëm ci diggante Boy Niang ma mu yor ak Balla Gaye numéro 2 ma nga xam ne nii moo dëkk ca Guédiawaye Balla Gaye numéro 2 ma dëkk ca Guédiawaye nag tey xëy na ngar daajoo ab yëglikaay mu di record seq fa waxtaan wu yaatoo yaatu moo ki nga xam ne nii moom moo di Abou Ndour Balla nag moom mu ngay wax ca la ko ci lamb ji ci ay at ak la daal dese na ko ci ay défi yoo xam ne nii war na koo def Balla nag jàpp na ne daal bu fekkente ne na ne jàpp na ne kon moom fi mu nekk nii dese na ko sax 11 ans ci lamb a ma combat mu mën a doon wala nee na a bëreel waaye na daal Balla jàpp na ne mbër mu ne wala marchandise mu ne am na njëg koy jënd ku ci ne daal xam nga la ngay jar maanaam mbër yi mbër mu ne am na pireem loolu waxi Balla Gaye numéro 2 la ba tey mu seq ko ki nga xam ne moo di Abu Nduur waaye tamit yemu ca de ne na ki nga xam ne nii daal moo di Aziz di kilifaam moom xamal na ko ne am nañu ñëw bëgg kombaam ak ki nga xam ne nii moo di Gris Bordeaux Tafatine wala Bombardier daal moom daal moom la wax na lu mel noonu ci yëglikaay bi nga xam ne moo di la koor bëri na loo xam ne daal tey Balla gay wax na ko jàpp na ne tamit masut a wax fenn ne bu bëreek Modou Lo dix fois da koy daan waaye li leer ba leer daal jàpp na ne moom Balla daal képp ku taxaw ci kanamam di bëreek moom moom jàpp na moom moo la dàq ñàkk bëre waxi Balla Gaye numéro 2 la du samay wax mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne moo di record ak yeneen yu bëri yoo xam ne Balla tey xëy na ca dugg digganteem ak Abou Ndour la seqaloon wow waxtaan dañ fay jóge waat newaat dis dandatu tuuti dellu sunu làmb beneen combat boo xam ne itam bëri na coow muy diggante ki nga xam ne moo di roi des arènes ba ca Parcelles Assainies ak sëll bu ndaw ba ca Pikine seen jàkkaarloo ba nag yëglikaay bi ne na mbaa du ci daa mel su continuer maanaam loolu menace lay doon ci jàkkaarloo ba nga xam ne ñu ngi koy waajal pour le 4 février yëglikaay bi xëy ñëw bi ñu ko wax leneen la ca des mooy yëglikaay bi ne combat boobu ba tey bu fekkente ne dañ koo bëre te Luc Nicolaï ne ci biti jàpp na ne loolu daal est-ce que du doon ay risque ndax nag li leer ba leer Luc Nicolaï ku ne xam na na mu mel moo xam bu fekkente ne dañ koo jël ci wàllum organiser na mu ca mel ak lu jëm ci wàllum tamit li nga xam ne nii moo di communication yëglikaay bi buur la ko tudde maanaam turu roi la ko ca jox maanaam buur la ci communication ak itam li nga xam ne mooy carnet d'adresse bi nga xam ne yàlla may na ko ko mu ne kon bu fekkente ne nag organiser nañ kombaa bi te li fekke wu ko mbaa du doon loo xam ne nii ah du doon ay risque loolu sunu làmb xëy tey def boobu taxaw seetlu di dànkaafu yëglikaay baa xëy ñëw tey dinu wax loolu keneen koo xam ne nii moom ginnaaw ñaar fukki at ba mag ja bëre ak Abdou Diouf moom nag jël na ko war a bëre ak moom muy Gris 2 yëglikaay bi di sunu lam moom tamit xëy na ñëw ci moom di ca wax keneen koo xam ne ni moom wallu lay woote mooy bu naa maras sa école de ba daal ba ko taxawee la ba tey gisul benn promoteur bu ñëw ne ko combat ngi nii wala bëree ngi nii moo tax mu mel ni moom mu ngay woote wallu bëgg ko wallu waaye leneen loo xam ne tamit daal lu nar a am la muy diggante ki nga xam ne moo de Zallo ak ka nga xam ne nii mooy caatu ngiwel ki nga xam ne nag moo di maam lees di ab entraîneur dëkk ca parcelle moom jàpp na ne fils de Zallo moo gën a xarañ fuuf ki nga xam ne nii mooy caatu ngéwél du samay wax maam lee sa ko wax keneen koo xam ne nii moom wala ñeneen ñoo xam ne nii moom ñëw nañ ci làmb bees di ay promoteur ka ca jëkk mooy ki nga xam ne nii mooy aadama Sané moom nag daal nee na ambition ba mu am mooy tëgg combat VIP yi te leen itam li leer ba leer daal ci lu néew a néew maanaam ay fan yu néew dana commencé taxawal li nga xam ne nii moom moo di ay combat loolu waxi ki nga xam ne nii moo di Adama Sané la ka nga xam ne moom ñëw na ba pare taxawal muy booy get ndar ma ngeen fi xamoon mbër mu saf xorom ma te dëkk ca ndar booy get ndar nag taxawal na ay combat pour le 14 mars fa nga xam ne mooy stade Maître Babacar Seye ba ca ndar yëglikaay bi sunu làmb xëy tey ñu ko booy get ndar daal contre na ki nga xam ne ni mooy Ameth Dème numéro 2 ak Boule 2 loolu daal ca ndar la fas yéenee amee yëglikaay bi xëy ñëw tey dina ko wax ñeneen ñaara ngi moom ci lambi simple ji ñu ngay bëre combat boo xam ne daal combat bu sorante wala combat à distance la ko yëglikaay bi tuddee muy diggante caaka fay ak Franc ku ci ne daal bi saison bi ubbee ba tey la ngay def ci wàllum simple yëglikaay bi xëy ñëw wax ñu ko ci ay combat bu dee Franc la yëglikaay bi ne trois victoires yi a am dajale na ca sept millions huit cent toll ci cinq victoires yoo xam ne daal amagu na ca li toll ci trois millions six cinq cent soixante cinq mille yëg li kaay bi xëy ñëw tey dina ko wax mu mel ni ki nag li leer ba leer daal ñoom ñaar ñii moom bu bëggee dëgg-dëgg ñu ngay wane seen bopp bu baax a baax ci saison bi nga xam ne moo uppi di 2019 jàpp 2020 waaye li leer ba leer promoteur yu bees yooyu axlan wa saxlan lan leen di wax muy get ndar wala muy ki nga xam ne nii mooy Adama Sané ñëw leen ak jàmm ndax làmb ji moom lu promoteur yi bëri du doy ndax mbër yi bari nañu lool te jàpp naa ne ñépp war a bëri quoi Leewtoo TV nii nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa lay nuyu di xarit waaw maa ngi lay fay waa loolu la yàlla dogal <laughs> di nuyu ñëpp ñuy suivre waa di leen ñaanal jàmm di leen di ko sàkku ci ñoom waaw sa xarit laa de waaw lool moom téere la lu leer nga wax <laughs> loolu am na solo Babacar ñëw nag si sunu laam sunu laam nag dafa xëy dalee ki nga xam ne mooy Tafa Kandji nekk chargé de communication Boy Niang moom nag nangu na ne ni ngi dox comme maam ak ki nga xam ni ak Balla Gaye jamais kay moo koy dox waaye moom daal neen lu ñu gis daal ñoom nanguwuñu bëre ak Balla Gaye si 50 millions ne ñoom daal dañuy trouvé que cachet boobu dafa naw lool pour bëre ki nga xam ne mooy Balla Gaye Babacar. ah loolu la Tafa Kandji xëy wax ah, mi de moom li may wax la rek njaay la. jënd ak jaay la bu jàppee ne tey pour ñoom ñu bëri ak Balla war nañ leen a fay lu war a ëpp cinquante millions def naa loolu am na droit boobu parce que tamit ku ne yaa xam li sa mbër di jar ak li jaadu pour moom ci li nga jàpp waaye tamit promoteur bi moom xaalisam la yor moom itam am na lu mu mën am na loo xam ne tamit xëy na du ko mën mais li ci am solo mooy xëy na suñu waxtaanee continuer discuter yàlla mën na def ñu trouver terrain d'entente maanaam déggoo ci kawi kàddu pour combat bi mën a taxaw waaw parce que tamit nekk na combat boo xam ne euh, nit ñi am na ñu bëri jàpp nañ ne war a mën a taxaw la am na ñoom ne tamit gisewuñu loolu waaye daal xam naa ne bu discussion bi continuer moom xalaat naa ne déggoo dina am loolu sax la Tafa Kandji wax nee nañ mën nañ trouver benn terrain d'entente mais nag na jamais kenn dem gis si kaw ñoom Balla Gaye ñu ñëwaat si moom waaw maanaam kon na dem gis ñële rek xëy na moo tax ma ne la xëy na ñoom yaakaar naa ne buy tàggee ci ñoom itam du bëri waa kër waa booy ñang waa ngi dégg xam naa li gën a compliqué ci li ma jàpp mooy côté côté Balla Gaye foofu laa xalaat ne fa la di gën a méttee pour taxawal combat bi parce que la mu si waxoon moo si nekk kani combat bi taxaw gi ak mu bañ a taxaw day dépendre ci Balla gay numéro de parce que tamit moom yaakaar naa ne bu waa ji déggoog moom ci kase xalaat naa ne su ñëwee mook booy ñang xalaat naa ne côté boobu mën na am mbir ma gaaw a taxaw Babacar jàkkaarloo bu ñu doon wax na diggante Balla Gaye kii diggante Ama Baldé ak Modou Lo bi nu jàppoon pour le 4 février nee ñu daal mesure bi nga xam ne CNG génne nañ ko si euh, seen réunion bi passé maanaam képp kuy taxawal ti à face day fekk combat bi nu au niveau du CNG nu signé ko fa ba pare nee nag soo matul comme que combat bi nag taxawgul au niveau du CNG soo matul combat bi nëpp na euh, face à bu nar a prévoir le 4 avril 4 février narut a am Babacar waaw bu dee nekkente ne loolu ñu waxoon daal dëggal nañ ko que ni léegi ku fi taxawal di combat balaa ñaari mbër yee toog dañ koy signé au niveau du CNG ba pare muy doog a mën a am ah loolu su amul nag xam naa ne jàkkaarloo ñu doon xalaat pour le 4 février ca TFM xëy na kon loolu lu koy yaax lay doon wax loolu nag yaakaar naa ne euh, comme li ma waxoon laay waxaat rek ndey ku ma faal nañuy waxtaan rek ama mbir yi moom waxtaan la euh, waxtaan bi mooy ñu xool li nga xam ne bu ñu ja bu ñu xoolee ne lii mooy lu jaadu ñu fexe ko def pour que mu nekk. avantage su ñëpp li nga xam ne jàpp nañ ne du lu jaaru te du nekk avantage su kenn ñu jéem koo dindi tege ko nële mais tout le temps rek nañuy waxtaane mbir yi di ci discuter parce que mbir la bi nga xam ne nii olof a ko wax ñu bokkub teen ñooy laxasoo ay goj CNCR pour gérer làmb ko fi teg promoteurs yi bu dul ñoom làmb du am mbir yi tamit suñu bëréwulee bëri du am bu boo tëggee te amateur yi ñëw itam làmb du neex kon defe naa kenn ku pàcc bu mu ci mën doon ci biir làmb rek am na lu muy servir làmb ñooñu nag nañuy faral di waxtaan ñi jee rek ñi jee rek ñëpp bu ko defee xëy na su loolu amee li ci des du doon lu garaaw dara su fekkee journal bi nee na face à face bi dafa menacé nee nañ tamit combat bi bi ñu prévoir diggante Modou Lo euh, tamit combat bi tamit c'est menacé ngi si biir euh, aussi kaso bi parce que am na yoo xam ne moom moo ko mën a doxal boppam te mu fekkee nag nekku fi teewul combat boobu mu taxaw dina xaw a jafe trop Babacar. waaw li am solo daal mooy la ma sa ñaanoon laaj say ñaanal rek yàlla na yàlla def daal su combat bay am waaw ne ca stade ba gérer làmbam man moom loolu laay ñaan parce que tamit lig bu absenté ci biti ñu tëgg combat bi man Babacar bëgg naa combat bi am waaye bu lig nekkee ci biir wax dëgg yàlla euh, du neex su combat bi am wala dina naqari ci ñu baree baree bari ndax lig jiwuñu loolu daal ñun wax dëgg yàlla waaw moo tax ba nga xam ne daal suñu sañoon su combat bi am face à face bi ñuy wax pour le 4 février sax yàlla na fekk lig ne ci biti man loolu laay ñaan daal Ndeye Goumba Fall keneen ki nga xam ne tamit si journal mi ngi ñaan pour ay pour mu am ay combat muy Bouna Marass te nekkoon ancien lutteur moom nag nee na dafa mel ni promoteur la ñuy fàttali que moom am na école de lutte nee na ay ate ate ngi nii benn promoteur musul fëgg buntam tëgg fa ay mërëm yi pour wutal leen ay combat muy tamit lu ne da nga bëgg moom ku neexul Bouna Marass nag mbëru séeréer la boo xam ne yaakaar naa ne ya def na ci làmb lu rëy rëy rëy ba bàyyi tey làmb formé école de lutte kon kooku ñëw na pour yokk làmb ah mais tamit boo formé école de lutte dafay baax nga ut ku nga xam ne ni moo yore booy ci côté management ba xam ne ni dina mën di dox ci seen ay combat ngi dégg loolu daf ciy am est-ce que am na management boobu loolu tamit question la yaa ngi dégg parce que manager yaa ngi fi am na manager yoo xam ne yaakaar naa ne booy formé loolu boo leen ci woolee boo leen ci woolee associé leen ci xalaat naa bu ñu la jàppale war nga mën a am ay combat yaa ngi dégg parce que pour promoteur yi di tëgg xale yi ndax xale yi xëy na xamaguñ leen kon am na lu muy laaj ci wàllum doxalin boo xam ne ni mooy tax ñu mën leen a gis mais itam ñu ngi ñaan promoteur yi rek nañ ko gestu moom bu naa mara sax école lam boobu ndax xale ya fa nekk mën a tooyal seen xaftaan pour dugg si làmb ji bëree Babacar loolu am na solo suñu jógee nag su lamb lañu dem fi nga xam ne mooy record record dafa xëy dala ki nga xam ne mooy moom nag mi ngi wax nag si carrière neen daal lu ko desee si lamb ji bëreetul wax na tamit xam ne koy dox moom ak yeneen mbër yi ku si mel ni Tapha Tine Gris Bordeaux ak Bombardier moom nee na nangul bëree ak ñooñu ñu leen prouvé mais mbër bu nekk xam na li ngay jaar ku nekk xam nga li ngay jaar si lamb ji moom tamit nanguwul ne mi ngi nangu aussi ne moom lu mu jàpp daal mooy mbër bu taxaw si kanamam rek yaakaar na ne moom moom mën la mën Babacar waaw Balla tey waxtaan wu yaatu lu Cheikh ak Babou Ndour muy waxtaan bu neex a neex ci ay atam kani moom li ko ci deseti bëriwul waaye donte ne na loolu la mais bu fekkente ne tamit dañ ne 45 ans mooy retraite bi te moom mu ngi ci 33 ba 34 ans kon dese na ko 11 kon yaakaar naa daal xëy na ci buñ ko déggee nag si biir waxam xëy na moom dama jàpp ne est-ce que naroon na def 45 ans yi ci làmb yaakaar naa naroo ko ci ni mu waxee yaa dégg leneen li moo xam Tapha la moo xam Bombardier la yooyu yëpp yaakaar naa ñett ñooñ moom ku ci ne adversaire am nga ndax dafa am lu ko lii ak ñoom su dee Gris ku ne gis na digganteem ak Balla fa ñu jaar kere ci méttiwaay ci combat bu tar mu gañe ko mook Tapha Tine itam mu gañe Tapha Tine Bombardier gañe ko kon defe naa foofu day joxe revanche di laaj ay di laaj revanche kon loolu lu jaadu la a ah, la mu wax kan tamit jàpp na ne ku taxaw ci kanam moo la dàq bëre waaw loolu moom ku ne am nga droit bi wax ne man mii maa dàq bëre ci làmb ji waaw loolu moom moom moo ko wax ay waxam la la ca des nag mooy yow yaa koy prouver waaye xam naa ne daal mbër mu yàlla may la ci wàllu bëre moom waa xaw ma nag moo fi dàq bëri wala dàqu fee bëri waaye mën na lool li ñuy wax bëri moom am na la ko ci yàlla dénk bu baax a baax a baax te itam yaakaar naa ne loolu ñu bëree bëree bëri duñ ko werante ci par rapport bu ñu gisee li muy def ci biir bëri ak yu mel ni ki noonu quoi parce que làmb moom la plupart mbër bi nga xam ne dafay defi action li muy daan day day day ëpp te des fois technique am day faral di te moom ci biir bëri gis nañ ne li muy jëli ji mbër bëri na trop trop trop moom Balla Gaye Babacar nag si kàddu yooyu leen tàggoo di leen jox dig daje suba incha may mais balaa boobu mooy nuyu sunu yaay mère Sow nii sama doom Mohamed Diouf di nuyu Asta ne déjà vraiment chéri ki nga xam ne mooy euh, Abdou Gueye depuis États-Unis Baye Fallou Diamaguène papay Cité di ki nga xam ne mooy samay doom Maam Diarra Penda Rokhaya Grand Fallou yaa ngi si biir sama doom boobu naan ko un gros bisou di nuyu ki nga xam ne mooy Aïda Diouf aussi Ramos Ndiaye yaa ngi si biir waaw Ramos kenn du ko fàtte ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaye nag tey damay nuyu tamit sama tailleur Rimka Couture di ko ñaanal jàmm dem ne ko ngénte li neex na en ah, liir boobu di daba saar roq yi yar na ko yàlla may gudd fa nag wér bañ koy takkal boroom kër yaa ngi dégg loolu lañ koy ñaanal di nuyu yaayam di wéy juróom bu jigéen di ndey waaw di nuyu famille boobu yëpp Karim sama xarit sama doomu ndey mi di nuyu tamit sama jigéen sama xarit Mami Khady Ndoye di rakku Youssou Ndoye maa ngi koy nuyu bu di magu Youssou Ndoye di moins maa a baax di nuyu suñu yaay parce que moom waaw yaayam mooy sama yaay yaay Penda Diawara maa ngi koy nuyu di nuyu ki nga xam tamit di nuyu a baax di nuyu wax ne gis naa démb li mu defal sama soxna Mami Ndoye loolu kontaan ci trop mais di nuyu tamit ki nga xam ne ni mooy Omar Tawa Mars waaw noonu loolu pour teneng la du vidéo Babacar vidéo teneng la loolu c'est pour teneng xadi mami ndooye def loolu kon mami kontaan naa ci yow ki jël ne la am joxal li teneng loolu doo ko jàddal fenn yëfi teneng kenn du ko joxe waaw c'est pour moom moom kese la di ko nuyuwaat di nuyu Omar Tawa di nuyu Babacar Ndaw moom tamit ci ay commerçant ci asalem ak Badara bu xarañ loo moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ay soxna mami Ndiaye ak xadi Diop waaw moom tamit dem jox na ma parfum bu neex du mën a ñàkk waaw di nuyu ki nga xam tamit mooy sama entraîneur bu bees a baax. papa gars yi Babacar day a baax di nuyu tamit ki nga xam ne nii moom moo di Maas bu xarañ loo Maas itam maa ngi koy bégge bu baax a baax borom fëgg jaay yi nee naa Rimka yaa yor si sa bi mais Maas tamit mooy jaay fëgg jaayu or bi di jaay di nuyu jaaykatu fëgg jaay yëpp ndax loolu sama marché la xam naa ko ña nga xam ne nii ñooy jënd loo yeeg ñu yer ci taabal yeeg képp kuy ne ci fëgg jaay bi ak ñay tànn ak ñëpp nuyu naa la ñoom maam Thierno Wade ak son bu Wade xam nga ki nga ñëpp daal laal yàgg maar yàgg maar noo yàgg maar ci nuyu ko laa dëkk yàgg maar sama nuyu ak moom lenn la rek dama koy ñaanal yàlla yàlla may ko soxna su baax borom mars ndax démb sax maa ngi koy fàtte may nañ ma cuuraay gis nga démb bi ma demee ca ngénte la dama gis benn si supporteru Modou loo Moustapha jaaykatu cuuraay la ñu nuyoonte mu bég li ñuy liggéey woo ma ne ma am cuuraay li yóbbu yóbbu ko. ak yow non yéen ay célibataire ngeen damay bàyyi ba ngeen non su ngeen non bu Ramos ñëwee kee def la muy def ma jox leen ci cuuraay li cuuraay li pour teneng la Moustapha bu Modou Lo moom it maa ngi koy nuyu di nuyu tamit supporteru Modou Lo yëpp ak képp kuy supporteru mbër na ci Sénégal di ñaanal ñëpp jàmm rawatina nag Asi sama naar bi pare nga bu baax ba suba incha allah